تخواي أري مرتبة كون بتامون نكو أري مرتبة نبران نكو أري مرتبة نبتامون madame Ndoye wallahi sama tànk yi dis na dis boo xam ne jóg ma rax dolli fan yëpp damaa xaw a jagati waaye mënu woon bañ a ñëw. ma sama caba billaay la il fallait ma ndax dimba nga jum la nga fokk nekkul dëgg la nag sama gargot bee lu ne laa fay gis doxaankat yeeg mbaraankat yeeg macha allah waaye kenn du sa jëkkër am na ful ak fayda goo xam ne kenn du ko yeb te it naa wax ne la nag doxaanu fa kenn sama gargot ba dama bëgg nga dalal sa xel. kon mère Thiaba lu tax duma wax dëgg di ma tàggu génn entraînement. lekk sax defatu ko ci kër gi. madame Ndoye li la dal dal na jigéen yu bari waaye du seen fatu jëkkër yi de si man mii la sama togg ci boppam la kenn mënul résister man mi di wax ak yow xaalisu gargot lañ ma ngénte te it damaa man li may def man damaa mën togg man li may def wulu sama bopp wax dëgg yàlla man sama gargot amul table publicitaire. sama tef ko togg moma publicité sama tin bu baxé ba xéñ ba xet gi gil fu way mëna nek bu la xet gi duggé di nga daagu ñëw lek ci té nak lolu mo dal sa jëkkeur mo tax gudd gu ne mu ñëw rër ci gis nga mère chaba man ben problème papa duma koy sax fiire li bëgg rek moy mu tok si sama wet la <laughs> iway sama yaram daw ma madame Ndoye dinaa la wax loo xam ne suma ko wax kenn hmm. waaye nag ma dama bëgg jéeg bu bëgg sëy dinaa hmm. wax sama secret waaye dama bëgg nag su ma la ko waxee ñaar ak ñett buñ ko dégg na yem suñu diggante man ak yow. waaw ah, d'accord nga. d'accord naa.

gis nga Toch man du góor boo xam ne pédicure manucure ak tracé ay eyebrow moo may wax nan laay gérer sama sëy boo amee conseil yooyu joxe nga dem jox ko sarax. d'accord aw ma lu ma wax ak yow. dégg nga ma ndax nga dëgg de la panthère surtout côté pédicure bi dëgg la waaw ah oui ma defal ndànk man damay waxtaan ak yow rek. Mhm. dafa am lu ma góor gu baax waxoon ma bëggoon la ko baaxee xam nga yow sama xarit la. Hmm. mu ne ma xale yu jigéen ñi léegi seen sëy ñetti fan la premier jour bi mooy jour bi ñu leen indi seen warugar bañ laal seen sinam ak yooyu noonu jour boobu day bokk ci sëy bi.

G man daal mbéy nga mis kii mu tamit sax juddoo yóbbu sama fit bi ah. waaw yaay am naa testé doo si def ay ñaan. doom pare nga waaw kay jërëjëf na rees ak jàmm ak salaam. ay sóora Malick yow nee naa la bàyyi nawetaan yi nga toog xaar club bu mag bu la jël si a ah, doo toog nga dal. yaay nag boo séewul doo am compétition fi ni toll ay see xandaalu moo ma soxla ay yaay équipe boobu buy séen stade bi day fees dell da nga naan sax làmb moo fa am te yaay foofu moo ëpp ay recruteur ñoo ñoom ñëpp fa la ñuy ñëw. ñu fu ñu ne. ñoo nekk rëbës yaay yaay ay see boobu allahu ba ñëpp leen a xam. <laughs> asalaamaaleykum. soxna Thiaba. maaleykum salaam Cheikh bi. <laughs> Soro. waaw ah, na ngeen def ak coono. sant rek. ça va naka yaram. alhamdulilah. <laughs> waaw lii de maa. macha allah li bari na di. jërëjëf. jërëjëf yal na yàlla fay la. amiin yaa rabbal aalamiin. cheikh bi yow de. li naan oto yàlla gën bu nit. waaw may waxu dëgg. sama caag mu góor mi daa nga fekkee mu waxtaan ak. waaw yàlla def na football rek la bëgg ci xol bi. tey yàlla man loon nag ko. ah macha allah. macha allah gis nga koñ bi. ñëpp ko xam. waaw wóor na yàlla kat ba tey mu ngi football. te xam naa ne ñaan ak manqué. dëgg la ma bëgg rek nag. nga jaar ak moom fa nga jaara nag man. <laughs> ndax xam naa ne place ginnaaw yàlla ak yonante ba yaa fi defaloon ñaan yi. <laughs> waaw waaw dëgg la kay. te tuwaat fakalla macha allah gis nga. waaw waaw dama bëgg mel ni ñoom El Hadj Diouf. Soro sama doom la. dinaa ci jàpp bu baax a baax. incha allah rabbi. waa seex bi. bu dee téele la ngir yàlla daf may zëne. waaw. mosoon naa fee dem ci benn équipe. waaw laapataaka lañ ma jox nekk ci kuy dugal attaquant nga jox ko laapataaka. waaw bu dee lu may sangoo tamit la. ngir yàlla bu mu xeeñ xet gi daf may eh. ñu lay may ngay ah mënoo toog na rëmm rek bañ jox la li lay jox du moo nit daal day teey waaw bàyyi ko waaye kii xale la nag ah. Cheikh gis nga kii. waaw alors ndaka sa feebar bi moom ah jeexal na la de waaye daa yokk leer gi fi mu toll yaa wax lii. waaw macha allah fi mu moom yaa ngi leeral place bi. Ah. <laughs> xam naa bu subaa ma dolli. grave grave pardon waay maa ngi jégalu de su la nee. waaye ku am jàmm mbaa yàqu yoon bi rek. no ci mer laa bëggoon dem ah, hmm. de souci. mbaa yàqu ma yoon bi rek. <laughs> da ngaa a sañ <laughs> non gars yi yaa leen mën da mën a sañ tooñ rek tooñ rek quoi. bi. ma mhm. dafa am lu ndaw lu mhm. gi fii dèjà yaa fi suñu kilifa. amuñu droit def dara sans accord d'autant plus nag mu concerné li fi xew kenn du la ko nettali yow xam nga ni mu demee sax te loolu xam na si boppam ay mbiram moo commencé ëpp loxo li kenn bu maa ko fekkee. si na dëgg ñun juste dañ bëgg rek nga la affaire yi vu que sa jabar la. certes nag ñun dañ koy nangul moom amul benn problème musul dugg ci yëfu kenn dafa mësa allah dimbali ma ngir yàlla rek deuxième daal bu mu dañ da ngay camembert da nga fàtte loolu fekk nit de.

on partage le même lit. C'est vrai que Djoum mais elle n'est pas mauvaise. Et eh, toi, Snabal, qui est Togni Akanamu Wami Non, de l'identité d'Ara. Qui est le Faragal Djabad Eh, man, comment ça m'a dit Rêve nga trop. Wax na deug ki du sa morom. Sa grand frère la. Rêve nga trop. Yow, ragal sax dafa sedd. Yow dang ko tapé. Yow, eh, dama sa morom ba nga ma tapé. Yow comprendre ro wax ji. Tour xana ki diglu waxu bu baax. Xam la moy problème. pour mu lan la am wala du digg à chaque fois même phrase bi day ñëwaat on partage le même lii dafa bëgg lii lii wër la yéen xam ngeen lan la mooy sama jabar doyen ma ko wax yéen a ngi dégg ñàkk ngeen jom toxob jëm leen am jom ngeen dem takki moo gën d'accord loolu rek des ëppale lu ñu wax mu laal loolu chance grave ñun takkuñu mais ñeewuñu la dañuy fa tabaar fa kaala macha allah non ak banque bi muy liggéeyee bul fàtte loolu ñun ñu si dara nak di man li des sama aduna ma dul wax ak jour bi camembert Mm. hmm te tok nga xol de non fogg ma fon la mam doy way man lii laa xam xolal ma li rek xaar ma tok lekkaat ci jool li nga lek neex na kon baax na hmm. ay dama jum démb ba rus ndekete papa deful dara mère Thiaba ñëw na sama kër démb di ci waxtaan ak man ndekete dafa daan dem yi di ma ko nëbb bañ ma yëg ko. si c'est que yow nag xam nga luy sa problème dangaa gaaw a jaxle waaye ndooy mii ma xam bu baax muy sama meilleur ami ma jël ko may la ko mu takk la mosulaa def lu la naqari xam nga ni doxul yu ñàkk fayda waaye. yow may ma yow mi yaa ma ne ma topp ko li ma dal lépp yaa ma ko teg. ah du ma ne la nga topp ko.

<laughs> top secret dafa am sama diggante ak yow. yow lan nga bëgg. li may def xam naa ko. mooy la xamoo ma gargote laay dem tijji. gargote. waaw. teg ko ci suuf loolu moom boo ko defee mooy sama diggante ak yow fii lay yam. kon na commencé yam léegi te xam ne dama koy tijji. kat yi saf sell te wóor.